Thank you. ndeysaan ndeysaan combat ba démarré na liñ naan combat bi commencé na muy diggante bébé Colobane ak kii di Ndigal Fall ndeysaan GMTV muy xew fii ci Serekunda West mini stadium ndeysaan on the 20 March 2022 bébé Colobane Ndigal Fall ndeysaan combat bi ñoom ñaar nag ñi ngi lewatoo ñi ngi ne tekk ñaar di lewatoo ndeysaan ndigal faal mu ngi ci ndigal mu ngi ci ak di bébé Colobane ñaari mbër yi nag dafa mel ni ñeme wante wuñ ñu ngi cooka sante ah ñu ngi cooka sante ndeysaan ndigal faal mi ngi njawara gis nga noonu daf ko dóor ku dal moom bébé kolobaan tuñ bi xar gis nga noonu mi ngi njawara ndeysaan gis nga gémmiñ bi nu muy nàcce noonu moom moomu di faal ñu seet su ñëwaatee lan lay isi peut-être su ñëwaatee lu muy ici ndeysaan waaw waaw baa ngi daw suma gannaaw kapsin kapsin fele ndigal faal ñëwaat ref bi sifle waat na ndigal faal moo leen woon Bébé Cola ban moo leen jox lan la lay lay ndigal fa dóor Bébé Cola ban jogaan na Kapsin loo xam ci lii waaw dafa leeta lii di action bi pa parce que boo xoolee waaw dafa daan na ko daan na ko ah lana xew daan na referee's decision dafa mel ni daan na ko pa ñoom yi bi Mboran fans club dalam ambiance dalam jëli ambiance ambiance waay ambiance waay ambiance ndeysaan Mboran fans club bi ñu ngi ambiance bi jëlal ma gaay dafa am solo jey lamb ole ole ole ole jey lamb boy yaa ياما Lambak ambiance ànd jëlal ma fii jëlal ma fii jëlal ma lii jëlal ma meles meles meles Mass Mass dañu wax dañ ko ko kii ñoo ko mën kii ñoo ko mën door mu daanu Mass Borom Mass bi ñu dem ñu dem am na solo bu baax ñoo ñooy Mass fans club ak Borom fans club bi ambiance dafa solo ñu daam jëli ambiance si biir munoo wax lamb te waxoo ay bagage jëlal ma bagage yi lii mooy lamb ndeysaan waaw waaw am na gàllaaj yoo ñu boyal ko jamono ji sedd bi cey ndeysaan adama yow foog ma def la mbër yow <laughs> ñi ne sëriñ mbër bu màgget nak ñaare sëriñ lay doon deug la parce que li ku koy ko ku ne jëlal ma ñi ngi boy li yeb ay tektal la jëlal fourno bi ana bi moy fourno jola <laughs> yalla ni yalla may ndam daan rek ñibi leen buga mooy kan amical borom xàll bi waaw jëlal ma har fofu fay kan mo kan moy sa mbër amical amical nga kan ma na adama jëlal mi que dóor parce que nu tàmbalee nu mu tàmbalee moo am doole te dóor bum ko dóor dal na wàññi na ki nga xamante ne mooy opponent am ba ñoomi lii mu doon lu am solo moo tax mboor ci starting bi loo mun a def gisuloo dóor mu daanu dóor mu daanu fa mu am miir na miir na miir na miir na. comme am na see 15 jours xaalis bëri lañ ma jox liggéeyatuma may daj entraînement yi métti guddee bëccëg xam nga kuy contact ak ñoom building non kii du ma moromam yàlla xam na ko dama. nga ko ci jàkkaarloo bi nga ne ko xam na la tey nga ñëw nga confirmer ko duma ko ba daanu gëmmal lan lay wax tey ñi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci lu mel nii tey. maanaam man ku ma xam ci làmb ku ma xam. waaw doo ma gaaw a jël. xam ne bi mooy sa premier combat nommé fii. xam nga dama ne ko. dama ne gan laa ci làmbu Gambie. mais duma gan ci làmb man mbay guy gi mbay guy gi laa mujjee bëreel mbay guy gi mu bëreeg Zarko demb démb maa bëreeg moom ci diggante bàyyi ma ñoon baabooy Kaolack man làmb du ma ci gan dama am tarma ci làmb rek moo waral ma jël kii barki Serigne Saliou Mbaak tey ñëw nga ci làmbi sa buntu ubbeeku na ki nga xam ne mooy Gbagbo lan ngay wax ak yan mbër ñoo nekk sa waaw ma ku ñëw baax na ku ñëw baax na di ñaanal sama doom day foog la yàlla may ko combat waaw sama doom day la maa ñëw bokk dëkk Kaolack ñooy ànd chaque jour waaw ku ñëw baax na ku ñëw baax na waaw jaayëf kontaan naa ni maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di bëggee sama rakk ji barke Serigne Touba Mbacke kii kii yàlla laa koy bàyyi ak Serigne Babacar Sy mi mu yaakaar barke Serigne mu amee combat bu ñu ko fayee ñëw même bu xaalis bu baaxul sax da koy jël ngir def ko ci combat bi kii yàlla na ko suñu borom fay ci barke Serigne Babacar Sy jaayëf bëgg naa leen yéen ñëpp waagaan jaay ma fans amicale a ngi amical a ngi yëngal Bébé Balla la ñuy wax ñun Bébé Balla la ñuy wax jëla man Bébé Balla suma raka dama ko ñaanal yàlla mu am ndam bu leer inshallah rabbi suma raka la suma raka la yee suma raka la ma ko ñaanal ndam am yanam am ndam inshallah toogom bébé rek be suba bébé rek am ngeen yaakaar yéen yaakaar ñëw ñaf daan ñi nga dama lan ñun bébé rek bébé rek bébé rek bébé Balla den de bébé ndam rek ndam rek. ndam rek mooy sa man bébé Balla. ak Boy Balla. am nga yaakaar. man non aw ma ko. <laughs> bébé Balla dafa nuqate nuqatu. billahi wallahi du yomba. Eh, ma plora lii bébé ko asi bébé lii bébé ko asi. promoteur nañ ko bàyyi xel lu ma dugal ci stade kenn du ko dugal ci stade dama fil promoteur bàyyi leen ko xel fii yëpp la fii yëpp la. hey ñun bébé la amul caab mooy hey ñu ragalu loolu Costa léegi ndega bu dégg di Costa tous tas dijj dëgg na ko kon arobas da nga koy jàngal bëree ni suñu borom maa la ko wax jërëjëf ñu dem seen gaay bébé ah. arobas arobas ah. guddi guddi baara dim guddi guddi baara la. gaay dañuy tëj. guddi guddi gaal yi dañuy tëj. gaal yi dañuy wàcc. wala dim guddi guddi gaal la ñu jël. guddi guddi ñibbi. fi ngeen fan. xuus xuus ñibbi. champion maa ngi lay nuyu. waaw maa lay delloo ziar jamono ji fan rek maa ngi sama combat ak Terre Max rek di ñaan yàlla yàlla may ma ndam bu baax a baax. kañ la combat boobu. Ah. di sant yàlla bu di la di bëggee waay Farato. di bëggee xam nga sama gaay di sant sama idole leket bu baaraam mu may ah. di jaajëfal ñëpp waaw di ndokkeel police booy tey defet bu mu am yenn ko jik bu amatee combat di sant sama waa di sant axlu làmb di jaajëfal ñëpp jërëjëf. jërëjëf champion ndeysaan ñi ngi ñëw si combat gis ngeen kooku di Bébé Balla na loom jógee ba jaabang arobas a ngi noonu moom it yëkkati na loxoom ref mu ngi wax gaay ref ngi wax ne ndeysaan lu leen mooy mbili bite moo leen ay fuuf na muy diggante Bébé Balla ak Bébé Balla arobas arobas Bébé Balla arobas Bébé Balla ñoom ñaara ngi lewoto kenn laalagul sa ñoom ñaara ngi kenn laalagul arobas Bébé Balla ndeysaan Bébé Balla moo nekk seen wàllu càmmoñ arobas moo nekk seen wàllu ndeyjoor Kapsin combat bi diggante ñaari xale la te xale seen waar muy arobas ak kii di Bébé Balla moo ñu woon kanam Bébé Balla jox ñu gannaaw waa ñoom mi fu ñu toll nii wëri dem na këñ waxi mag tey du guddee tey waxu mag du fanaan àll dina fa guddee waaye du fa fanaan waa ñoom mi làmba jàngook ñoom ñaar ku ci nekkaa ngi ne tekk tekkaaral ku ci nekkaa ngi ne tekk tekkaaral arobas wameewuñ ko xaar ngañ tey foog jël la am pa pa kii de waaw parce que bébé xaar te su ñëwee di xaar dina ma jaaxal man. pa ñoom yi léeg mu am ci solo parce que cokkaas yu mbër yi di def nii loolu bunta lay tijji loolu day tax mbër bi nga xamante ne moom ngay bëreel di ko natta ba xam kii ndax mun naa koo congu wala déet gisuloo fayu na moom it fayu na fayu na waaw loolu dafa bokk ci làmb faaw ngeen nattante faaw ngeen xoolante faaw ngeen bàyyante xel tamit. parce que ñaari ndaw dañ nekk ñoo xam ne dañ leen bàyyi xel ci làmbi Gambie torop muy Arobas ak Bébé Balla kon du ñëw di saasaaxeeg seeni combat wóorul parce que ku si mbooloo boo xam ne tey Kapsin takku soo ñëwee saasaaxeeg sa combat dina métti. ak say fans te dina la delloo it gannaaw bu baax moo tax ñoom ñaar ku ci nekk jom rek lay demee ngir boo xoolee gestu yuuxu yi bàyyeekoo ci sa gannaaw muy say soppe dina la yokk jom dina la yokk fit dina yokk kàttan tamit ak gabari ci yow loo munoon benn di ko def fukk waaw mu ngi mel ni ñu ngi cookaasante. waaw waaw déggantaan daf ciy baax. daanaan biir sax kulli factrin te gaz bi yëpp pour ut buntu waaw boobu yaa ngi natt sa morom pour xam ndax kii tey bu ma doxee ci kawam dina nan la muy mel ñeexi ñebe lay doon walla ñeexi cere lay doon bu ah, mu ci mën a doon daal da ngay siim eh, lan la yaay yaay yaay loolu arabas wóorul Bébé Balla tee na tànki Arobas ah. wóorul mu ngi dugal mu ngi dugal ay coow mu ngi dugal rokas mu ngi koy dugal ay poñ dóor mu daanu dóor mu daanu paa ñoomi fii dóor mu daanu mënoon naa am paa ñoomi lu doy waar a ngi nii ah, Jabsin Arobas ak Bébé Balla ñu ngi bëre dëgg dëgg xale yaa ngi bëre waaye est-ce lu muy bëre nii la war a bëre waa ni muy bëre li ma ci gis mooy hmm. duga ak roof bu muy def ak bu muy génnee di simeekuwaat loolu óorul parce que borom mun na laa dóoraale ponc boo xam ne da ngay ànd ak dat ponc mun na laa séntu de ground óorut gisuloo gisuloo óorut gëlem am na laa ilaaha daan na ko daan na ko arobas daan na bébé bala arobas bu amul set wecc daf ko xëcca mu uyusi ko mu bës boppam bi ci suuf bi jullil ko te waxtu gee jotagut <laughs> da koo suul am na solo bu baax a gis ngeen combat boobu muy diggante Arobas ak kii di Bébé Arobas am ndam bu ci kaw kii di Bébé daw na ci borom drapo bi ndeysaan pañoom yi daf ci am solo parce que excitement bu dee nekk ci mbër bi ci boppam mm. dina ak kontante bi ne ci moom mooy war a léeg-léeg mu dem gërëm. ndeysaan fair play. waaw fair play. lii dafa nice. nice loolu la def. Ah, ah, ñëw na ci moom di wax moom. Mm-hmm. lii la ñuy si lamb ji. Mm-hmm. ay ndaw suñ bëree ba pare su jeexee rek jeex na. Arobas Arobas nuyu nañ la. amul lu ñuy. billaay ay xale ndaw lu mu guddi guddi guddi dañuy jaraat géej bi ñibbi. billaay ñu jóge sunu métti. tey mosu ñu waxaat naa ñëpp ñëpp ñëpp. billaay. Arobas ñu gis tey nga doy waar muy fair play boo xam ne. bëre nga moom daan ko. ñëwaat ci moom. téye ko ànd moom ba fansam wane gars ne kii ndaanaan la. lu waral loolu mom champion la bu ko neexoon du ma jël bëre ak man billahi muy mbeur mo jox cër bañ si leen contrat ba léegi musuma dépasser musuma wax lu ma naqari muy mbeur bu ma jox cer billahi loolu kessa la moo tax mun nga ñëwoon noo combat waw combat bi dañ ko liggéey ma and ak suñu écrit ñi ma yé fajar ngon suñu écrit kese di am ñoo xam la sama ginnaaw ñoom Babacar tal xol gëné seen xaas ci combat bi ah ñom ndom wal wan ñoo taxawuma suñu écrit man ñom la may victoire bi ndax ñom la ku ci melni alfu ku ci alfu alfu ndofan ñom ba Assis ñop ma lay ni gërëm ñi ma ñop wa Sirmang ma dama Sirmang ñu ñaanal ma billahi sama doom ndey Seeku ndjay son ci combat bi alalam da febar mais alalam la ci doon gëné ñaar di ko ci def écrit bi man la may victoire bi écrit bi jamono ji ko joxoñ baara ah ñëpp xam ne ma lamb booleel kan? ko loo juuf loo juuf Maba Souldia loo juuf Maba Souldia man la loo juuf su ko koolu waaw Maba Souldia Maba Souldia nee na combat kan mooy Zambon. étoile nga gis. rabbi loolu la ñuy ñaan yàlla te yal nañu yàlla may ndam bu seedo gu ñu delloo ko abu ko ma yaay étoile moto maa ngi taxaw fi incha allah soobee yàlla yàlla dinañu may ndam bu seedo gu si kaw. yaay ko. soo leen nay harfahu fa étoile rek dem leen ci kii ah. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. maa laa fee bari ma ne. dama bëgg a gaye bay xel eh, beneen mbër mu fi bu ko dem. mbooloo bu mu fi andi. amut benn eh, mbër yu ndaw ñoo xamante ni assuré façon mbooloo boobu na ko gaye bay xel promoteur na ko gaye bay xel bu baax a baax a baax. gis fa eh, ñu sol blouson yooyu ñu fancier la bu ko dem ñu toog yëpp moo leen fi andi. comme maa ngi jeex mu am dam moo moo daan incha allah moment étoile étoile. ne leen ngay bay xel bu baax baax a baax sa liggéey bi rafet na ñu sax bulu sow ñëpp a ngi ne waaw ñoo fi am na bul tee wa jarbaat étoile la ndaxte jarbaatam suma xarit la waaw dafa mun bëree bay ko jëlee ko si mbëri magi mu dem waaw bu ko la eh, ndam rek ndam rek am ndam. waaw tey damaa ñëw seetaan ci Mouba Soldier waaw suma combat boobu nag mu ngeen teg ko top 5 gis ngeen lu Mouba bëre waaw ah, affaire bi il faut tànn mbooloo waaw ñu def rek ay xaar yow. waaw ñun di aar après bi rek. waaw am na wane sa bopp. waaw am bi après si weeru koor bi soog a ñëwaat jàkkaarloo booy lu seer. combat bu am solo mi ngi muy diggante étoile ak kii di gaz gaz moo leen woon gannaaw moo leen bi cosaan bi nekka ndeyjoor càmmoñ étoile moo nekka ndeyjoor étoile a ngi mépp dóor na étoile dóor étoile a dóor étoile a dóor lay laay la la daan na gaz Étoile daan na Gaz jël bu amul benn werante Étoile daan na Gaz jël bu amul benn werante jëlal ma Étoile daan na si ay simili si ay seconde si ay minute la Étoile am ndam ci kaw kii di Gaz am na solo Adama yéen fii ngeen fanaan jaay arbitre moo ñuy jaay. waaw moo jaay combat plus ndam rek. gaal yi wàcc nañ. gaal yi wàccaguñu. gaal wàcc nañ mais ñun suñu gaal wàccagul. waaw ba fajar. suñu gaal am gaal bu leen jës. every day saa chaque combat. gaal moo gaas. dafa daaneel. lu mu fi def kenn du ko def. li mooy lamb wala ñoom ñaar seen adversaire yaa war a daje waaye am na solo ba. kan waxal waxal arbitre ne nañ bàyyi mbër bu bëree ba tas ñu jël combat bi jox ko koo xam ne bëriwul yaa ngi dégg loolu dafay yàq lamb mons nit mu ngi train ngir benn combat am ànd ak ay nawleem pour ñoo am ndam yóbbu bëree ba tas nga jël ko victoire ko jox koo xam ne ne bëriwul loolu war war yoon waaw arbi ni nañ xool ñoo defaat ci lamb. combat bi ngeen ne jaaruñu. combat bi police boy moko ko dafa bëree ba tass mais dañu jël jëlee tubaab bi jox ko boy bi te boy bi bëriwul lo wartu mën a ne ta yag na di and ak ay mbokam ñew ñëw ko may pour bëri am ndam mais mbër su aduna am yeb ngir lamb da nga wara dimbalé mais wala ko xeex nañ ci xolal ba baax. naa ko yeggee. champion am jam am jàmm combat police boy bi dégg nga bu dee règlement lamb lay wadé fo sit bi. gars yi bëre balaa fa police ko génne saako lu tax lu tax bëggoon amul avertissement police gars yi bi ngeen ànd génne saako yi ñu jox police arrêté bàyyi kal na le gis nga làmbu gaam bi ko teg si yoon yaa ma comprendre police bi xale bu ndaw la ñàkkul dara yaa understand police bi anate mbooloo mu am ni am na andi wuñ ko yaa understand jàkkaarloo bi wax waxi noppi waaye nañ nañ teg làmbu ji si yoon ñun naa dinañ def luñ mun waaw ñun de làmbu ji si nañ ko dégg waaw ñun moom képp ku ñu yóbbante nañ ko yeegale. waaw oh, ref lii nag ñun nekkaluñ fi kenn làmb lañ fi nekk. bàyyi loolu police booy mër mu mag la indi mbooloo gisoo xoolal fi lii yëpp ko fi indi. waaw gars yi di ko jaay noonu si combat loolu baaxut. ko dégg incha am na solo. kan ngeen ànd ah. waaw naka la yéen a ngi kóol nu mu ba demee lépp jaam ah. yow da nga tiit. non tiré non tiituma sax. waaw yow da nga tiit booy yéen da nga lem waay. lépp soldier la man. da ngay dee de. waaw soldier. waaw soldier lañu àndal soldier. soldat moo ñu fi taxaw ñëw soldat moo ñu fi teg moo ñu fi teg Marcus gaz lañ wax gaz daan rek wal day xaar affaire bi ama la ama la ama bu kee sëriñ moom leen àndal am na sax ñuy dégg ma si bu am solo muy diggante Meles ak kii ama ama woon leen gannaaw Mélès mi ngi noonu yëkkati loxoom mu spécial combat boo xam ne TNT entertainment moo ko isti tey ci Serekunda West mini stadium muy combat yi amical ak Kidi ñëw bëre grand combat bi ama ama yaa ngi jëm utali meles meles ama meles a ngi wër meles a ngi wër ama moo nekk seen tànki càmmoñ meles moo nekk seen tànki ndeyjoor mu am séri rabal bi ci ngembam gi meles lu Ama yaa ngi ne teg di déglu Meles Meles a ngi Meles Ama Meles Ama ndeysaan ñaari mbër dafa am fu ñu bëgg a tey ñu ñëw di bëre grand euh, spécial combat mele sànni na waaye Ama yaa ngi rek topp ko mele sànni na Ama rek Ama lu mbëgg mele waan na Ama na dooraat meles Ama dóor dañ koy teg ci yoon Melees daf doon seet kii ban nit la waaye gis na ndeysaan Melees Ama Ama jógee ba Kër Sëriñ Melees jógee ba Jaabang ànd ay mbokkam waaye ba léegi Ama yaa ngi ne tekk topp ko rek Melees di wër mépp na Maintenant, Ama Meles la ilaha illallah Meles doon mu dal Ama yaa door Meles yaa door Ama yaa door Meles yaa door est door daanu do yey yey la ilaha illallah ñaari mbër yee nañ Meles am na wonin waaye arbitre ñi dañ xee ba génn arbitre yi nañu bàyyi xel loolu dañ xee ba génn géew gi ci ay ñaari mbër yi ñemewante nañ est-ce que dóor mu daanu du fi am Ama Mélès Ama Meles Meles ak Ama ba léegi ndeysaan su combat démarré gewel yi dégg ñëpp dañ naan di seetaan waaye cey fii fii mel nii fi sedd de mele sànni waat ama sànni na mele sànni na ama meles ñi ngi yee ama sànni na mele sànni cey combat combat bi Adama mbër luñ ko fay jar na ko mbër luñ ko fay jar ko ay ponkal taxaw nii di dóorante dafa metti foog mu métti ah, foog mu métti ne de ñoom ñëpp a ngi ne teg di déglu waaye dëgg-dëgg gars yi sedd na de ah ya? sedd na de ndeysaan ama yaa ngi déglu kii di meles gaa ngi mënees jox ganaaw waay waaye su doon lamb jigéen sax jeex na léegi bëre leen waay bëre leen ban bëre waay ama doona meles doona ama la ilaha eh. illallah doona ko daanu lan la lii lan dafa mel ni na ardo Meles dem na Ardo lan lañuy ñuy xaarandeku fii. paa ñoom yi paa ñoom yi lu doy war a ngi nii. mbër yi xeex nañ. lañ diggante woon. ci seen jàkkaarloo wane nañu ko. paa ñoom yi lii moo ciy baax. ndax ki fay ticketam. Mm. ñëw pour seetaan làmb. Mm. pour bëggee làmb. day nam ma gis lu nu mel. la ngeen waxante di ko yekkante ci face to face yi jëfee leenu ko Cap Sène Cap Sène mbër liñ ko fay jar na ko liñ ko fay jar na ko li dafa métti moo tax woykat bi wax na ko ndeysaan ñu koy ñaanal rek yan na suuf sedd ci kawam ay yaxam yan na yan na ko yàlla yóbbu ci àjjanatul firdaws muy Papa Thione wax na ko mu ne mbër mbër luñ ko fee jar na ko mu ne si bët yëpp na jàkk ci sa kaw mu ne loolu rek leneen la pañoom mi ne yaramu neen bu fa ngémb amutoon kon mu ñaaw ci lu wér a ngoog kooku coon la kookoy papa coon na ko yàllaare jannatul firdawsi amiin waay pañoom mi ne ñu daan la say noon di ree say ah say di ree ah. fans say dëggantaan yëpp Mike yëpp di dal di daw sakow pour weer dëggantaan am solo waaw waaw tey dëgg dinaa dëgg de kokoy Mohamed Kabir Mboup léegi la ñoo bi ref bi ñu bërewaat waaw daf leen parce que dafa fuuf bu muy génn saako yi am na avec woonin waaw Tyson dafa fufoon bu muy génn saako yi kooku building la meles meles ak kii di ama euh, meles ak ama ya waaw meles ak ama pa ñoom mi ñu ngi jéem mag maa ngi jéem mag ñu alama la waa ci lu wér waay ama est-ce que du def lu mu defoon waa ama moom ku ko xam xam ne mbër bu am fit la am na fit meles waaw ci lu wér Meles am na ñaari wooni léegi. moo tax nag fu ñu toll nii bëre rek a ko war. bëre rek a ko war. Meles Ama. Meles Ama. ñu ngi lëwatoo. ndam demul ndam dikkul. ndam demul ndam dikkul. ndeysaan. Kapsin bu combat bi Meles daf doon seet kii ban nit la di ko natt waaye jamono yi foog naa kapsin kii Meles nee na di déglu Ama mu doon lu am solo ah, Ama dooraan na Ama dooraan na grand combat bi amical ak mbooraan moom la ñuy xaarandeku ñaari mbër yi di bëre spécial combat. ak ak ñoom la ñuy xaarandeku. comme niñ ko waxee rek pa ñoom yi. 28 of March 2022. mu tombeeg dimanche. Mm-hmm. ah ah Meles. Meles ah ah ah ah, ah génn saako yi. Kapsin xale yi bëre nañ. Kapsin xale yaa ngi bëre. ñu ngi bëre. Kapsin oh. est que wonin bi jaar na waaw bii day moom ñoom ñaar boo xoolee ñoom ñaar bii waru ko woon a jox dañ bare ba génn saako bi la ca waroon rek mooy ñu oo leen ñu bërewaat waaye nag reason based non to the refli. Mm. paa ñoomi Dimas on the 28th of March 2022, mm we are right at Serekunda West Stadium to witness one of the most talked about bout between Mboran ak Amical mu di combat bu neex combat boo xam ne àddina yëpp a ko yàkkamti nit ñi di ko waxtaanee picca yi di ko sabee nit ñi di ko bind ci fenn si ñu àgg ci li nga xamante ne mooy booba combat waaye nag digganta Meles ak euh, Ama mm-hmm. fu ñu toll nii ci jamono gi moo ne ci géew gi. spécial combat da koy wane. Kapsin grand combat su ñëwee neexul sax nit yi gis nañ seen si combat bi ba pare. dëggantaan. waaw te gëm naa ne bi dina neex. combat bu nar neex. te ku gis amical jógee ba Kanifing ak ay mbokam mu doon mbër bu am mbooloo. Mboraan jógee Ikiri Mara jógee ba Ibo Town. waa Ibo Town yëpp dar ko. waa moom. suñ ñëwee ba dugg ci géew gi dinañ wone fula ak fayda. jom fit fula ak fayda rek a fi des fu ñu toll nii mm-hmm. waa ñoomi gàllaaj feñu fi doole train ak fit moo fi des ah ah ah lii nag duy óor paa ñoom it dóor mu daanu ci yii la dee amee gisulo ah, gisulo gisulo gisulo lay lay la la daan na ko ah non da ci biti la ah. ci biti la Kapsin lu am fi dañ génna boobu bëre waat rek a ci war Kapsin lu am fi bëre waat rek a ci war Kapsin lu am fi bëre waat rek a ci war half time nañ Cap Sène lu am fi maire daw maire maa ngi daw ci di jubal si ndeysaan xaw ma da dafa bëggoon a ñëw àtte gaay wala leen yërëm da dafa am mbër bu mu gunge kenn mënut a understand daf leen yërëm waaye pa lamba neex ndeysaan ñëpp daf leen yërëm Cap suñu cosaan daf leen yërëm waa ku ci nekk sa koo jàngee wax ak yow moo tax na mu def nii ref bi dey ndaanaan la ndaanaan la Cap Sène fi ne xale yi su fi yemoon sax mu ne bu fi yemoon sax mu ne lamba ji neex lay xale yi ñii su doon man maay bi naa yokka seen kase promo su bëree ba pere naa leen neexal Cap Sène bu la paañoo bi bu la promoteur bi déggee mere la <laughs> ndeysaan ñu seet fu wenante di mujjee gétam ama yaa ngi sànni ama cookaas waaw waaw ey ma gewel yi kookoy Kara kookoy Modou Kara Gueye ndeysaan maa ñoomi bu ma juumul nag boo moytuwulee bii mooy ne combat bu mujj ci saison bi ndik weeri koor la ca des bareetul ah, ah, ah, ah waa dafa bëgg jébalu paañoo mi dafa cey combat bi combat bi rek gara combat la combat bi jar na lu ne combat bi jar ne te mbër soo liggéeyee rek mu feeñ kapsin ñaari mbër yëpp liggéey nañ si doole liggéey nañ si physique xale liggéey nañ la ñuy train dëggantaan wane nañu ko tey ak lekka hmm. dem train dem tëddi xale yi day def nañu ko. ba pare Kapsin ñaari mbër yi ku ci daanu sa say fans duñ la mere. gars yi bàyyi neen say cig si. waaw parce que mbër am na yenn yi nga xam ne mbër làmb dafa fiir loo ca def rek mu feeñ. Mm. waaye na mbër yi lekk dem ca training ground bi dem teel a tëdda ñii ñu ngi ci doon dox. tey wane nañ ko ba ma sëkk waay waay ñu bëre waay Kapsin su jeexee nii nag mooy am ndam ci kaw Meles because warning yi parce am na ñaar ki am ben waa ci lu wér fi ne Ama dafa ndengeñ rek tee Meles door na baa ñoomi fii dey lu ne mun na fi xew mu may fàttali Eumeu Sène ak Modou Lo tegal sees te dafa mel ni mu koy wengalu na muy wengaloo noonu di ko jox wet lu ne mun na fa am ndeysaan léeg moo tax bu nu tolloo fii tekk tekkaaral bi lu bari du ci óor ndeysaan Kapsin waa jaabang ñëpp a ngi taaw ndeysaan Melees ak Ama ba léegi ñoo ne ci diggi géew gi jëlal géwél yi waaw waaw Babsin wala maire bi xoolatut gars yi yéen man de la am ci du mooyu na waaw jigéen ñi ñoom ñoo di suñu yaay ndeysaan xoli yërmande bi dafa nekk ci ñoom waaw ah, ah ay combat bi booy ras Rastafari day <laughs> Rastafari day moom pañoom Rastafari ya ngi dem ba jeex. Kapsin. waaw. Kapsin. Meles. Kapsin. Meles. Ama. Meles. <laughs> tey tey lii laa gëm. du lambi jeeg bi lambi góor la. ci lu wér. mbër yi liñ leen fay jar na te lañ diggee diggante woon ak askan bi def nañu ko ne woon na ko ci seen jàkkaarloo boo déggalee sa bopp du arrière benn yoon dinaa xeex ak yow comme ni ma war ak yow bu aajo woo ma duma daan la waaye nag dafa mel ni ñoom ñaar kele tontu ko neko ko bax ma ngeer ko lo indi ding ma fa fekk mu ngi mel ni ñoom ñaar a lu nu mel doy na lu tax suy jeex na grand combat bi ñëw dugg suy jeex na grand combat bi ñëw diggante Mborane ak ndeysaan dooraat na ama yaa ngi sànni ñi def fi mu ne ak lum seede seede lii laa ilaha illallah. bëre na bëre na. dafa jébale. waaw dafa jébalu. loolu boobu dafa dal si bët bi gisatul. waaw bët bi soo kap waaye jàmbaar la. jàmbaar pire a ngi nii. gaañu na. bëre na lu rëy. ba ndeysaan ba léegi ñu wax rek ji ñu ñëw toog ak kii di Horoja mu doon koo xam ne duñ ko wane waat ci lambi Gambia. ñu tuddé ko drapeau parce que dafa liggé lu am solo ci lambi Gambia koku suñ ko tuddé lamb dañ ko délo ñukal raja ñu. dila fay lu bare bare pa ñoom. maa jam ay sante yalla bu baax. raja nga doon ko xamné da nga liggé lu bari ci lambi Gambia ñu délo la ñukal tuddé la drapeau tay nga def délégation ngeen indi waat motivation bo xamné ñepp ñëpp waxanto jamono ji fan ngeen jëlee fan ngeen créé lii yéen da gara garaaw. Forever Friends la. yaay fàttali ko tànn biir. waaw bañ génnee lu gaay wax. dañ ko am ba tamit fii la xëy rek jeex. Ah. waaw. yéen ngeen jëlee vidéo yi ñu spy. ku fi tuddee waa drapeau ñun ngaa laaj. <laughs> rajo lan ngay yëg boo jógee say xarit say soppe say am di jàmb ñëpp jóg ànd ak yow ci délégation bu am. kontaan rek apprécier ko rek parce que lii dafa neex. pañoo bi nga oote ñëpp ñëw bàyyi seen soxla indu si kër bi xam nga tasewaat fii ñëpp ñëw alors ah, rek apprécier la promo tay manager mbëri xamuloo si kenn fédération bi ñëpp ñëw dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa nice bi laay pañoo bi jërëjëf jërëjëf pañoo ñu ñëw national anthem si diggante amical ak kii di ñoom ñu kono Kapsin wure wa dem na keng Kapsin Kapsin luñ doon xaar ci ay weer di ko ah, ñu koy xaar ci ay semaine picc di ko sobee Kapsin ñu koy xaar ci ay waxtu tey la tey ay jeex na tak amical mbooraan moo leen féete seen tànki ref bi fuuf na seen ñi diggante ndeyjoor amical moo nekk seen tànki càmmoñ amical moo sut kii mbooraan mbooraan toj na nen ref dafa fuuf rek mu tooj nen kapsin ñaari xale yi ñaari ndaanaan lañ on the 28th of March 2022. We are right at the Serekunda West Mini Stadium to witness one of the most talked about bouts between Boran and Amical tey di combat boo xam adina addina addina ko yàkkamti di combat boo xamante nit ñi yëpp a ko doon xaar ren ba ñoomi Tamsine Borane dóor lay daw amical dóor kat la moo tax ñaari xale yi fi mu ne ku ne yaa ngi bañ sa morom génn géew gi dëggantaan parce que lii buñ fa tolloo pa ñoom yi physique daf ci am solo lool loo train lu ne ah, dafa mel daf ko bëggoon a mbot waaye boobu doxul doxul mu ngi koy omat ci biir pour mu ñëw daf ko bëgg a plaqué ko bëgg xar xar daan na ko mbooraan daan na amical mbooraan daan na amical laa ilaha illallah doole la ko jaay daf ko buddi ca kaw daf ko xar buddi ko won ko ne ko maa la ëpp doole ne asamaan si am asamaan ne doy na mu ne ko suuf suuf ne ko jox ma loo ma jox ma jël mu ne ko runkum ci kaw pañoo toog nag ci kawam lamba ji jeex na lamba ji jeex na. Kapsin. ñoom it doy na tey. ndeysaan la def. waa mm. ñoom it ay dirigé. lii. dafa li la neex. sunu lambango. ndeysaan mu doon loo xam ne comme nuñ leen ko waxee suñu làmba spécial waaye diggante amical ak kii di foog naa gis nañ num demee Mborane am ndam bu set wecc ci kaw kii amical. ma ànd ak ànd ak suma ndaanaan yi ndaanaan yi muy kon lii lañ leen amaloon tey si Serekunda West Mini Stadium jërë ngeen jëf bye bye.